الله أكبر الله أكبر الله لله sant ki sant alhamdulillah ñu sant oh, borom bi subhanahu wa ta'ala ki leeral lii wone nit ki mooy ki leeral identité nga xam ne loolooy wax yaay kan borom bi leeral ko matale ko ci ñépp ak fépp moo xam ci jamono la mbaa ci béréb ki def loola moo yeyoo ñu jaamu ko mooy buur bi yeyoo ñu koy jaamu mooy kenn ci léppam moo lépp bokk ko kenn ñu ngi koy seedeel ki mu tànn mu doy ko mooy muhammadan sallallahu alayhi wa doy nañu ñuy xencu sunnaam di def ndigalam di sori ab tereem mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ak ku nekk tànnal lañ koy mu identifier bopam ku nekk daa war a identifier identifikasi na méngoo nag identification bi tax ñu sàkk la identification bi tax ñu indi la ci mooy jaamu yàlla moom dong doo ko booleeg lenn borom boobu nañu dara taxul ma sàkk jinni ak nit lu dul nañu ma jaamu bugguma ci ñoom wërsëg bugguma ci ñoom ñu leyal ma ndaxte maay joxe wërsëg te maa am kàttan gu matale kon lii moo tax ñu amal ñu kon l'identification doomu aadama ki nga xam ne jaar na ci yoon wi tax ñu amal ko moo tudd al islaam bi nga xam ne moo matale lépp benn benn doomu aadama yi fu ñu mën a ne ci jamono ak ci bërëb ñoo bokk identification benn boobu mooy al islam boobooy melo bi borom bi subhanahu tànn gërëm ko mu ne ki tudd ni ki jël melo bi kookoo ma nangul kooku moo ma gëm te mooy yëngatu ngir man borom bi nañu li ñuy tuddee diine ñu ci ay wom motu ca yàlla benn melo dong la mooy al ki ko gëm tudd almuslim foo mën a ne borom bi subhanahu mu ne ku tànn leneen lu dul al islaam ci doxalin ci nose ci pas-pas mu ne jàppoo ci dara te yawmal qiyaama boo ñëwee duñ la ko nangul te ndega bokk ca ñay ñàkk kon lañ lay nangul mooy al melo biñ la jox mooy al muslim amatut leneen kon identification boobu moom lañ lay xàmmee ngir nga wuuteeg ñeneen moom mooy wone sa jëmuwaay mooy wone sa personnalité sa nite da ngaa nite wala da ngaa rabe islam boobu moo koy moo koy wone te ci loolu lañ lay mën a àttee ku gëm nga mbaa gëmoo ku baax nga mbaa baaxoo ku nose nga mbaa nose borom bi subhanahu wa leeral loolu mu ne kan moo gën a rafeti wax kan moo gën a rafet tànnin mimman aslama wajhahu lillah koo xam ne jox na boppam yàlla ku wommatul borom bi subhanahu wa te mu rafetal wommatu ba te mu topp ndonoog ibrahim alayhi salaam bi nga xam ne àndul ak lenn tëralin bu wuteeg tëralinu borom bi subhaanahu wa taala lal yahudiya nasraniya wala shirk ndaxte borom bi dàqal na ko lépp du yahudiya ndax ñu ne ko millata ibrahim déedéet du nasraniya du shirkiya lépp borom bi dàq na ko kon wattaba millata ibrahima bi nga xam ne daa jéngu yooyu yépp jaar yoon wu jub kocc moo taxit wattaxada allahu ibrahima xalila borom bi subhanahu wa taala ne ko yaay sama xarit yaay sama soppe mu ne ñu mu ngoog topp leen ko borom bi ne ñu ku gën a rafeti kàddu mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala innani minal muslimin kan moo gën a rafet kàddu ku boole boppam ci islaam ku jël melob jullit yàlla mu ne amul ku la gën a jub kàddu ku la gën a ku la gën a rafet kàddu kon jullit day woote jëme ci borom bi subhanahu wa taala wa daa ila allah jullit day def lu baax wa amila soliha jullit du am dàkkental man liila man laala man fiila man faala laa wa qala innani min al muslimin kon identification bi la borom bi subhanahu wa ta'ala jox képp koo xam rek gëm na kon jullit nii lay war a kon loolu mooy doon yonuk benno yoonug ànd yoonu niroo yoonu jàppalante yoonu dëgërante yoonug bokk noon yoonug bokk jëmuwaay waaye bu melo ya wuute péete ya wuute askan ba wuute dañuy paccaxu dangay gis jullit def loo xam ne beneen jullit day muslu ci jëfam jullit def loo xam ne beneen jullit day lu ci ay jëfam lan moo ko waral mooy melo bi moo wute delluwaay bi moo wute kon borom bi moom daa boole yooyu yépp kon bu ñu seetee aaya yi dinañu gis ne leeral nañ ne képp ku gëm borom bi subhanahu wa taala motu dal jëm ca moom dina am lu koy ràññatle ku defut loola te loolu moo tudd al ki ko gëm tudd al muslim melo yooyu ndaxte mooy melo bi nga xam ne moo lay def nga jox sa bopp borom bi subhaanahu wa taala nga wammotu ci ay ndigalam nga bàyyi ay tereem nga woote jëme ci atteem jëme ci tëralinam jëme ci lum la gëmloo mbokk jullit yi buum bi ñu mun a dajale benn dong la buum bi ñu mun a dajale ngir ñu bennoo ñu niroo ñu ànd ñu bëggante ñu soppante ñu muñalante ñu jéggalante ñu jéllalante benn buum dong la benn dong buum boobu noo tudd al réew manu ko abadan lal wataniya réew manu ko kon ad daawa ila al wataniya laa tuxaqiqu al wahda abadan woote jëme ci réew nationalisme amul njariñ woote ci jamono jamono bii lay nekk nii ak nii duñu boole déedéet woote jëme ci mboolo bu mu mun a doon mënuñoo boole munul tax ñu bëggante woote jëme ci deret al irq da'uha fa innaha muntina woote jëme ci deret man lii laa kii laa la lii laay làkk kale laay làkk borom bi subhanahu wa taala leeral na ko mu ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne da'uha fa innaha muntina laa tuhaqiqu lwahda wala alquwa innama ramzu lfasal wa tabaud kon loolu wonewul dara wonewul doole wonewul kattan munul wone àndandoo kon la muy wone mooy lan mooy teqale ko ak échec ndaxte buñ ci woote rek dal di wuute ku ne am na maam ku ne am na langue ku ne am na jëmuwaay lan la ñuy indil nisa te borom bi subhanahu wa taala tere woon nañu nisa bu ñu ko defee lan la indil fa tafsadu wa tazabarihukum kon loolu ad da'wa ila al mooy indi anam yu mel noonu te tuddee nañ ko ad daawal jahiliya ceddo pir la maa ceddoo ngi noonu kon doomu aadama doomu aadama la maslaha munuñoo dajale la maslaha ñu gisee opportunité munuñoo dajale déedéet ndaxte li nga jàpp sa maslaha la am na keneen mom leneen la am yow li jaral maslaha am na koo xam gis-gisam romb na loola kon loolu munuñoo dajale déedéet lu tax ndax yi ñu tudd nii yépp day soppeeku kullu haadihi tatagayyar wa tatabaddal léppay soppeeku mu soppeeku ci béréb mbaa soppeeku ci jamono mbaa ñi fa nekkoon dee mbaa ñi amoon ñàkk mbaa ñi falu woon folleeku hakada day soppeeku kon loolu mënuñoo dajale kon la nga xam ne moo ñuy dajale mooy islaam yi ñu tudd yépp day soppeeku wa amma li nga xam ne mooy islaam thabit moom islaam mooy islaam laa yatagayyar wala yatabaddal laa min shaxsin li aaxar ولا من زمن لآخر ولا من مكان لآخر بل هو إسلام له مبادئ وهو منهج للحياة إسلام دا أم أي برنسيب تدنكو ترل منك أنا مب anamuk dundin depuis borom bi subhanahu wa taala ko mu ne mu ngi nii mu def ko man hajan mu ne nii ngeen war a dundee ba léegi ña jàpp mooy man hajun li hayaati shuhada ña nga xam ne seen dundu dundu bu jaar yoon la dundu bu mucc ayib la dundu bu yéwén la jàppalante dimbalante sàngante sutura yërëmante loolu mooy programme boobu nga xam ne mooy programme dundin bi borom bi subhanahu teg li mu wuuteeg yeneen yi saalihun li tatbiq fi kulli makanin wa zaman moom ngir nga appliquer ko lu yomb la laajul kattan laajul am-am bu jéggi dayo laajul it xam-xam bu jéggi dayoo laajul yooyu laajul ne diwa ma jur laajul ne fii laa dëkk mais foo toll mun nga koo appliquer ci jamono bu ne xoolal yi ñuy tër ayna rasmaliya al istirakiya assuyuiya yooyu xool ko ci jamono salihun huna la taslux hunaak bal hatta ida qila salih mufsid même fi ñu wax ne mun nañ ko fa appliquer baxna ci ñoom baxul day yàq waaye xoolal li nga xam ne islaam fi kulli makanin wa zaman li jamii shuub ma ixtilaafi amarihim wa amalihim wa ulumihim lépp mun nañ koo appliquer kon benn buum boobu moo ñu mun a moo ñu mun a boole te dund boobu mooy alxayaatu raaqiya wa saqaafatu saafiya mooy dund boo xam ne dund bu mucc ayib la boo ko gisee léppam day jub baax mooy culture bu laab bu set culture la boo xam ne dafa laab dafa set boddiwul lenn xeebul lenn waaye lépp da koy teg ci jikko ak xel ñépp yem ca bokk ca ànd ca te programme boobu مو دبو بنين بودول موم دبو يوافق الأقل السليم خل بو خمنا خل بو موچو أيب لك دي دبو أك موم نختي دا أم أم تيينين پروغرامي أمول تي موم لا اعتداء الاعتداء غير موجود في منهج الإسلام ولا الخيانة ولا الاحتقار ولا الشذوذ العقلي والجنسي والخلقي لا الديمقراطية انظروا الشذوذ أه؟ موي ترلين بو خامني امول لو نيو ييمو سي مبونام سي لو خامني داي ووتي خيل داي ووتي ناتور دو خام لوتاخ نيو خيلات امول نيرين تي داي ياق te dafa xeebu te day indi jàngaro te day tax a torox te day tax a teqale ko mooy mooy ashuzuuz loo xam ne doo xam rek kii lu tax lii doo ko xam ku ànd ak xelam warul xelaat lii loolu amul ci islaam mais nañu xool maanaam jalgati amul tere nañu ko wor xeebaate génn topp li ñuy tuddee léegi ci jamono ashujuz aljinsi sëy comme ay bahima sëy comme ay bahima xoolal xoolal programme boobu programme bu ñu taxaw ñu ne nañu fexe sëy moom tas góor ak góor ñuy sëy jigéen ak jigéen ñuy sëy nit ak mala ñuy sëy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu ban programme la loolu ban njariñ la am boobu ban xel moo ko mun ban xel bu góor yi séyee fu nit ñi jëm aduna bi fu mu jëm ah borom bi subhanahu wa taala leeral mu ne bu ma doon yéemu dama yéemu atatuna rijala sahwatan min duni nisa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne yow da ngay dab sa bànneex ci lan ci góor nga bàyyi jigéen ki mu xam ne looloo tax ma sàkk ko ma wuutale ko yow seen yaram bokkul seen kàddu bokkul seen yëg-yëg bokkul seen doxalin bokkul seen expérience bokkul lépp ma wuutale ko pour nga mun a bànneeku ci moom nga ne yàlla sa programme boobu baaxul man damaa indi sama programme bopp wa yasawna fil ardi fasadan ñooy dox dañuy dañuy yàq ci kaw suuf yàq ci kaw suuf hakaza léegi da ngay dégg ñuy créer léegi créer nañ ay pommade pour góor jigéen yi ay pommade waaw bu de parce que pommade yooyu la ñuy diw bu ñuy sëy pour ñu bañ a gaañante wala bañ a am problème waaw xoolal yow bañ la sàkkalee jigéen borom bi subhanahu wa taala moom créel na ko automatiquement liquide borom bi lépp lu mu def de koo def ci yoon gis nga boo jàddee yoon bi rek da nga gis naa vraiment bi du fii boo jàddee yoon bi rek mu ne non non non du foofu fële la te bo dellu sul gannaaw dañ ko gis parce que loolu yépp nag tëral yeneen programme yu wuuteeg bopp yàlla nga jàpp ne boobu mën nga éliminer wala nga am benen melo bu bokkul ak al muslim mais loolu boo ko amoon jaar ca yoon booba lii ñuy wax nii du doon sa problème abadan nit ku xelam nekkul nit ànd ak jikkoom mu taxaw mu ne moom day dem sey ak góor inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon programme bi mooy programme borom bi subhanahu wa taala bii nag la tëral la tëral boobu nag mooy wone ñépp jaamu yàlla lañu kullun ibadullah ñépp jaamu yàlla lañu kon fa ñuy arrivé ñoo fa yem jaam nga jaam laa kenn la ñuy kenn moo ñuy kan mooy tabaraka wa taala te ci loolu nag la ñuy atte doomu aadama bi ci maandu mooy ci jëfam rek lañ koy atte loolu mooy maandu ku ne la mu jëf rek foofu la ko borom bi tabaraka wa taala di atte ci maandu boobu loolu la ñu bi sallallahu alayhi sallam joxoñal ngir leeralal ñu taxawaay boobu mu ne nanga xam nag ka nga bokkal jëmuwaay nga war a àndal al muslimu muslim jullit bi moom na xam ne rek jullit dong dong dong dong mooy mbokkam kon nag waratu ko tooñ waru koo fenal waru koo seetaan waru koo xeeb doy na ci jullit mu def musiba rek mooy mu xeeb mbokk jullitam jullit ak jullit xaraam na ci deretam ci deram ci alalam xoolal programme bi mbokk jullit yi ñun ñépp bu da wóoroon ne sa deret bi kenn du ko génnee sa der bi kenn du ko takkal sa alal bi kenn du ko laal ban dund ngay dund ban façon dundu ngay dundu ak ban yeg yeg ngay yeg. waaye léegi gannaaw ragal nga sa deret bi ragal nga sa der bi ragal nga sa alal bi xoolal jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy am parce que tarakna manhaj allah wa baddalnahu bi manhajil akharin dañu bàyyi programme yàlla boole koog yenen programme yoo xam ne xeex ñu moo mujok. mu génnee ñu ci diine moo taxoon ñu jog tekkale ñu moo taxoon mu jog faagaagal ñu moo taxoon mu jog ñun ñu jël loolu ñu ne dañ koy appliquer mbokk yi nañu defaat li ñuy wax taxaw seetlu nga laaj sa bopp man anta nga xool lan ngay tontu man anta ana muslim jeex na kon tontu nga mbir mi mais feeg yaa ngi ciy def leneen retrouvaille bi du yomb jëflante bi ak àndandoo bi ak kàttan bi du yomb kon ñépp responsabilité ñépp la ku nekk rek jàpp ne ana muslim aabudullaha wa aqtadi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam man jullit la yàlla laay jaamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam roy loolu képp ku ko def rek dina fekk matale na ibadallah استغفر الله wa taala, wa sallu ala محمد Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.